Mm-hmm. ku ñuy votel cinquante six milliards votel ko ko ñaari yoon nga teg bilan am mm-hmm. da ngay gis ne bilan positif mm-hmm. maanaam bat bi mu nekkee maire de Dakar ba tey il a englouti cent douze milliards teg ko teg bilan Barthélémy da ngay xam ndax positif na ou pas boo jëlee bilan Barthélémy comme maire day positif parce que les maires n'ont pas beaucoup de moyens mais da ngay jël bilan Barthélémy jël cent milliards yi ñu ko votel en deux ans teg son bilan nga xool ndax positif non ou pas doo fu ngay nga voté milliards. teg ko mm-hmm. teg bilan comparé milliards avec bilan mm-hmm. positif ou pas donc à partir de foofu da ngay gis ne mm-hmm. ne positif un challenge la am. Mhm. renaissance politique. comment ça il est mort politiquement actuellement. comment ça il est mort politiquement il a fait beaucoup d'erreurs. challenge est renaissance. Mhm. nan lay def de droit politique. ça peut mhm. se faire en politique on peut renaître. que nan renaître politiquement C'est challenge une ban tactique bonne stratégie pour renaître C'est ce mooy challenge ci lan lay accès renaissance ku aussi sànq les serviteurs euh, Pape Djibril Fall aussi. Hmm, il est mort politiquement. ah oui. mort en politique. Il mhm. deux ans deux ans. bientôt trois ans lu ne dégg naa ko ci anamu. Hmm. xam nga Pape Djibril mënul politique. Hmm. da ngay foog ku intelligent la mais des na ko doon. Hmm. Pape Djibril bu intelligent du déroulé ni mu déroulé. Pape mi woon ci benn média. yaa ngi may dégg njàpp. am doole am influence. ñëpp baaxoo xel. discours porté ndaw ñi gëm ko di ko déglu. bu mënoon politique. du génn ni mu génnee. Mhm. dafay màgg sous l'ombre de Ousmane Sonko pas mu biir Pastef. Mhm. mais dafay màgg sous l'ombre de Ousmane Sonko. Mm. bu continuer woon boobu baat continuer di surfer ci vague de sympathie wu Sonko yooyu tey Pape Djibril ministre la ci gouvernement bi tu es jeune ministre de la jeunesse wala ministre de X ou Y yaa ngi dégg am nga carrière. yaa ngi ci yaa ngi ci média bi sa discours porté na ndaw ñi gëm nañ la mm-hmm. nga déroulé mm. liggéey nag def preuve def bilan mm. sa candidature mooy imposé wu mm. bu Ousmane poussé rek da ngay ñëw taxaw force la doo xëccoo doo ko imposé lu ñuy indi la lu ñor dañ koy màcc su boobaa force lii moo nekkoon plan wu Pape Djibril

mais bu 5000 voix santé yalla mhm. ay nit bëggoon créer candidature pour détourner l'électorat électorat Ousmane Sonko xam nga Sénégal dafa xat yow. c'est vrai ay fonds de campagne yoy mais yoy jaratul ñu ñëw c'est c'est dernier euh, mais politique man nak na nit ku wala la nitu la Pape mu bàyyi di génn jàpp ne saa yi génnee dafa war a tirer sur Sonko nee ko mu doxalee nii ak nii ak nii sëriñ na ma wallaay lu leer nañ nga wax danaa ci waxtaan ak moom mais c'est dommage euh, Le profil de Bougan, ton plat préféré Non, c'est mon plat euh, préféré. Mais c'est ton plat, c'est ton plat préféré. Bougane, quand plat la bouffe, plat la bouffe, comme daf may daf may num tudu daf may indil ay nausée. Yalla tere. Astaghfirullah, astaghfirullah. Le profil de Bougan, le profil de Bougan. on en parle euh, Bougane, lan la a apporter aussi à cette coalition euh, qui vient avec ses moyens, avec euh, ses médias la te ku xam li nga xam ne moo nekk élection euh, les candidats ont besoin de cette visibilité aussi. foofu ngay xamee ni Bougane Gueye Dany aayut. Mm. xam nga wax ngeen élection les candidats dañuy soxla visibilité. Mm-hmm. mais loolu média bu crédible moo ko mun a mm-hmm. comment ça comment ça. boo waree sa média. Mm-hmm. munoo am influence ci élection Mm-hmm. xam nga ban média mooy am influence ci élection yi. Mm-hmm. mooy média bi nga xam ni dafa équilibré. Mm-hmm. day dugal ñuy wax non day dugal ñuy wax oui. day invité pro passif day invité contre passif maanaam dafa équilibré kooku moo mun a utiliser influence am ci élection. Hmm. mooy da ngay mel ni ku maandu te so waaye so boo soo balancé soo ci balance bi ba ñëpp xam ni yow waxuma la média waaye anti pouvoir nga maanaam yow yaay tribune de l'opposition sa média ñi ànd ak pouvoir dootuñ ko tay tay tey des média ñi ànd ak pouvoir setaanatuñ ko no pour informer wu du moment que setaanatuñ ko pour informer wu des médias mënatul influencer kenn ni contre média ñi contre pouvoir rek tey sax. mais sang euh, dama dégg nga ne des médias duñu ñu invité. ñi nga xamné ne waxuma loolu de dégluwoon bu baax. dama ne mm-hmm. boo amee média. Mm-hmm. bëgg mu peser wu. Mm-hmm. ci l'opinion da ngay fexé ba médias bi melni lu lu mandu ta mandu hmm moy da nga am benn ligne éditoriale bo xamné les gens du pouvoir vont s'identifier comme les gens de l'opposition. hmm ba nit ñi jàpp ne média bi kat dafay informer juste et vrai à mm-hmm. partir de ce moment ci ngay mëna peser ci l'opinion mm-hmm. mais bu dee da nga taxaw ben taxaw ba ñep xam ne tu es contre le pouvoir mm-hmm. ñi and ak pouvoir seetaanatul la ñi contre pouvoir lay seetaan mënatoo peser sur l'opinion malheureusement d'accord donc man euh, suma la déggé Cheikh Ousmane parce que jaxul may euh, dem ci ki nga xam mo nek nekk Thierno Bocoum léegi nag euh, Bougane en personne oui amul avenir politique ah bi ma kay waxe ñu bëgg yàgg de ba léegi gañeegul koñ. donc euh, c'est un affairiste mom ak Anta jo euh, Anta yëpp da nga jappé waxu waxuñu non non Bougane du affairiste sax. ndax Bougane xamul ni ñuy défé affaire man kenn kenn xamul li mu doon. <coughs> d'accord mais su ma la déggee ci euh, li nga xamné mo nek nekk si discours bi wala sax analyse bi nga xamné euh, par rapport à euh, cette coalition euh, bi nga xamné ne mën nañ ils sont pas présentés si espace médiatique bi est-ce que da nga japp aussi cette coalition mën nañ ko à ak la coalition Arbis, des personnes yo xamné mën nañ tour

am na lu mu jëlul ci aar mooy am na leader yu fa am baas électorale muy mm-hmm. pur mm-hmm. am na lu mu jëlul ci aar mooy am na figure yoo xam ni intéressante nañ quoi mm. Anta Babacar quoi qu'on puisse dire nga d'accord wala nga baña a d'accord elle est intéressante Anta waaw seetlu nga loolu mm-hmm. wala seetlu woo ko kon Anta waaw elle est intéressante naa nga ànd ak moom comme nga baña a ànd ak moom elle est intéressante. en tout cas il communique bien. je la connais pas. Mm. pour moi tax ma la elle est euh, intéressante. ndax intéressante du moment que tu es intéressante. Mm. tu attires nit ñi dañ lay sétane mm-hmm. bo xolé Anta fu mu taxaw fay def attraction. bo xolé vidéo yi passé wala émeutes yi la passé wala marché fi amoon bu Anta taxaw da ngay gis ni la eh Anta ngi ne Anta ngi na le donc Anta elle est intéressante contrairement nak ak ar ar amuloon ko intéressant comment ça ah aar kan moo fa intéressant wul waxuma la déglul baax de intéressant ak am xam-xam bokul intéressant ak djub bokul intéressant la la. léegi yow looy intéressant. voilà <laughs> loolooy la di moy hmm. ko attirer l'opinion mon ngay seetaan télé. Hmm. di zappe di zappe di zappe di zappe xoolal. daj ci borom xam-xam. Mm-hmm. mathématicien bu bopp bi weex tàll nga xam ne day bind ba yaram bi takk kere dañ koy tëb xam nga kooku borom xam-xam mm. daje ku nekk ci microscope. Mm-hmm. di ko xool xam ne kii scientifique la nekk ci laboom ak ay tubam dañ koy tëb. Mm-hmm. ah romb ku nekk ci bibliothèque historien di bind ay parchemin dañ koy tëb nga romb koo xam ne daa toog ci benn kanape di ree nga taxaw loolu ay intéressant Hmm. intéressant. quelqu'un qui est intéressant. Anta elle est intéressante. ok. il ah, intéressant. Hmm. li wala wax ni Sénégal <laughs> oh plus fort res xam nga ar ko jël background mais ils sont pas intéressants. Hmm. D'accord. D'accord. accord euh, d' Fall coalition bi